président maa lay nuyu. waaw maa lay fay. Euh, muy si la président wu écurie. école de lutte Mor Fadam. Mhm. xale yi sa loxo lañu nekk. waaw xale yi moom sumay fiis lañ sumay rakk lañu xam nga sumay jarbaat lañu ko waaw di nuyuwaat euh, Sénégal yëpp rek di nuyu waa géej waay leen wax ni ñu ñëw jàpp ci école de lutte Mor Fadam. parce que paa bi nekkatu fi. Mhm. waaw paa bi nag nekkatu fi ñu bëri gisatuñ leen. mais nañ xam ne école de Mor Faram du pour Mor Faram pour waaye la quoi nañ ñëw jàpp ci. waaw ginnaaw nag euh, comme ni ko mbëri di nuyooyee ñu ngi nuyu axlu làmb yëpp. di jégalu tamit waa CNG yi nga xam mooy kuréel gi ñu ŋànk nga xam ni ñoom ñoo ko mate. di nuyu tamit euh, promoteur bi ñu tëggoon muy sëñ Modou Niang di ko jégalu moom tamit. di jégalu tamit suñu adversaire Mori Cargo. parce que xam naa lu seex yëg ci yaramam ba wax ko rek. Mouride yëg na lu ko raw. ñoom ñaar ñu nekk ay xale. waloon a ñëw daje ci bés bu mag muy le première janvier. mu nekk première combat ci année bi. yàlla dogal lu mu dogal. bon ñu ngi koy jégalu bu baax moom Mori Cargo. di jégalu groupe whatsapp yi waa ëttu làmb ji di jugalu jégalu waa Ndiaye production Baol production école de lutte Mor Fadam bépp amateur président des jeunes amateurs. président du Diagne Diecko président Gora Ndoye ñi ngi jégalu mondu làmb yépp ci ak ak accident bi am. parce que avant ñu nekk président école. ñun ay amateur lañu. te ba léegi ñuy wax ak yow nii intérêt amateur la ñuy la ñuy la la ñuy la ñuy doxee ñun. mais xooluñu suñu intérêt personnel wala suñu leneen quoi. moo tax daal vraiment ñu ngi jégalu ñëpp di jégalu CNG di jégalu suñu adversaire waaw loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax quoi ci côté kii bi quoi. waaw man nouvelle bi euh, wax dëgg yàlla daf ma xaw a bett parce que mbër mi bu muy génn xam nga mbër buy génn euh, foofu euh, président du fa nekk maanaam cumikaayam ñoom ñoo fay nekk ak coach bi xam nga manager bi moom dem na jiitu ji parce que dañ ci amoon trois trois trois yeneen trois combats ak grand combat bi. waaw euh, léegi nag dafa diisoon nag parce que boo xoolee am na ñaari combat yu su yàqu sax promoteur bi du ma bàyyi ma fenn am na ñaari combat yu su yàqu mais pour defar suñu bisu doom moo taxoon ñu jël ay mbër dugal leen fa pour ñu bëri ko. xam nga yoo xam ne ay quatre quatre jours du combat lañ jël combat yi ay trois jours du combat lañ jël combat yi ku mel ni Lagandong moom moo mujj bëree grand combat bi dañ ko daan te depuis 2013 ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi entraîné di préparé bëre façon combat bu nekk. dama ko woo mu maa ngi suñu dëkk dama am benn mbapat bu ma doon bëre dem maa ko jël tey amaat na beneen dama ko bëgg dama ko bëgg a euh, bëre ma ne ko yàlla na la ko yàlla defal bëre dóor la xam nga mu bëre ko jël ko ñaari mbapat la tegale jël ko ma jël ko dugal ko ci journée bi ni ko yaay bëre spécial bi booy kilo mburu tamit maa ko jël adversaire ki ñu ko boole loon dafa adversaire am dafa dafa dafa blessé man ma jël kilo mburu dugal ko fa sax ma a nekk fête bu ñu yàlla defalee sutura bu ñu ci amee waaw rattrapé wu rattrapé wu quoi mais nag euh, dama jékki-jékki euh, ni xaaral ma def samay affaire di sangu pour préparer pour dem euh, stade ma jékki-jékki dégg ñu naan Cheikh dafa gaañu affaire bi xaw ma jaaxal. léegi si laa xool image yi ma gis ñu wane ko mu mu am ñu muy waxal quoi mais boobu daf pour man beneen camp bi la man dama jàppoon ni ñooñ dañ fa am ay problème biir stade mu gaañu. après si laa laajte bi ma laajte ñu ne ma bi muy génn biñ ko sottee euh, seen saafara yooyu xam naa bi muy bi muy kii image sax man envoyé naa la ko di nga ko dugalaale ñëpp gis ko quoi biñ ko sottee mu jaayu def yëfu mbër rek def yëfu mbër fekk na mi ngi woon ak béjjënu koo ba bi muy jam ndekete moom jam na boppam téegu ko jam na boppam daw dugg ci biir ci image yi may seetaan quoi daw jam na boppam daw dugg ci biir oto bi te yëgul sax gaañ na boppam pour moom affaire yi duggul ndekete bi mu duggee ci comme ci oto bi comme ni ñu ko expliqué mu jékki-jékki rek gis yaram bi yëpp taq deret loolu daal dañ koy jàppee ndogal mais soo gisee ñu teg lépp mu leer wax ko wax ni mu demee see euh, xale bu ndaw la moo di kar xale bu ndaw la te boo xoolee seex moom la sax làmb gën a xam waxuma ko pour dara nag mais seex dañu doxoon combat am ak alliance biram alliance biram dem ba ci biir manager moo doon dox Pape Diagne moo doon dox combat bi mooy manager alliance biram alliance biram dem ba ci biir moom manager bi jubóowuñ ci prix léegi ñu moo Pape Diagne ni Mori Cargo moo fi nekk moo wax Cheikh ni ko Mori Cargo moo fi nekk Cheikh sax boobu xamu ko noonu ma ne ko moom mujjee ba rek Ndiaga Thiam doomu Pape Diop grand grand combat arène national te ay moroom ngeen xale nga amuñu lu ñuy xool yow demal nga bëre ak moom. mu ne ma amul benn problème yow soo d'accord d'accord naa noonu lañ jëlee combat bi kon combat bi ñun booy bi suy wax ay waxu état de forme moom su nekkoogul ba Cheikh di gis état de forme am bu mu duggee stade Cheikh li koy dal dal na ko biir këram moom bi mu ñëwee stade su meeku Cheikh ko sax sumeeku kon ay affaire de état de forme loolu taxul ñuy wax parce que Cheikh bu doon Modou Lo war bëre kaw day bëre loolu du problème parce que làmb daan ak daanu la te ñun ñoom nañ daan ñoom nañ daanu kon loolu du problème ku ci ku ci nekk rek. nga jël sa ndam dem sa yoon quoi waaw moom nag ñu ngi koy ñaanal ndam li jikko suñu mbor tamit ñu ngi koy ñaanal bu amaatee combat yàlla may ko ndam mais daal boo gisee ñu teg problème bi ni mu demee nii dañuy bañ mu mu dal mbër yu mag yi ndaxte lii vitrine la quoi te ñun école lañ yor ñun école lañ yor dañuy jàngal booy yi ay bon comportement bu neexoon teg beneen beneen beneen beneen stratégie ni ñu la demee ak ni la demee mais dafa nekk loo xam ne mën na dal façon mbër bu nekk moo tax ñu teg lépp ci digg bi. jàppale foofu CNG jox ko information mu xam ni kon mbër yi képp kuy kuy ngemb amuloo droit yor benn benn benn bëjjën. yow amuloo droit yor dara luy gaañe yow amuloo droit yor arme parce que wóorut ndax Cheikh bi muy jaay def li muy def bu daloon benn booy foofu. fa lay yem ndax mbër ak dooleem. xale bu ndaw te moom xale yi dañ ko bëgg. lu muy def xale yi ngay gis ci kanam. kon moo tax daal ñu ñu ñu ngi jégalu waat CNG bu baax di jégalu amateurs yi bu baax a baax mais li daal nañ ko jàppee ndogal la mais na ci waa def ay jàngat. CNG def ci ay jàngat man de sama école instant bi nii bépp mbër bu fi bëreeti dinañ lay dañ lay tere affaire jën yooyu parce que kii mënoon na dem daan Mori Mori mënoon na ko daan mais spectacle bi ñu waroon a fourni ñoom ñaar bu ñu ko fourni woon du tey ñoom ñaar ku si dëkk da ngay dem. léegi nag li ko desee bu ko yàlla defalee jàmm ak salaam mooy mu jéem a liggéey bu fekkante ni moom moo mën Mori kër gu war na ko wane ci kanam ci kanam. bu dem Modou Cargo moo ko war nañ ko wane ci kanam mais dem géej ak yooyu moom ay détails la quoi na mu war a bëre waa ji am na moom mais tey jii boo xoolee boo gënoon di laajte Cheikh Super Diamano lañ lay wax ko nag parce que su ma doom la mais loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal tey jii utal Cheikh moo gën a yomb utal utal ko moom combat moom nag na am 20 combats c'est pas dañuy wax pour affaire de soxor wala dara moom yàlla na am 20 combats bu bëriwul ak mbëru géej waay yàlla na ci am ay ndam dafa war a dem dañu war a daje ñoom ñaar leeral ndax lii amoon na fa si làmb amaat na tey mais bii moom comme ay xale lañ am nañ temps na Cheikh liggéey ak ay mbokkam moom Modou mu liggéey ak ay mbokkam. président ñu gis ni démb école de lutte Mor Fadam mooy la moo nekkoon le premier janvier deux mille vingt ngeen am ci quatre journée. waaw perte ñaata. waaw yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam. parce que ren comme ni mu la ko expliqué ren ñun suñu perte bi gëna a mag suñu papa Mor Fadam la. te dafa baax dafa baax jooj ñuy wax ak dafa xam ma xam làmb su jugee ci groupe bu mel nii war na mën a am quelque fois yu am résultat bi war na ci mën a feeñ. su ci feeñul dañuy xam ne yàlla ñu wërsëgal rek parce que ñun luñ mës a jaaxal ci moom la ñuy dem xamuñu dara si làmb moom moo moom moo doon moom moo doon coaché kon tey jii bu ñu dem bu ñu débuté saison bi mu xaw a médiocre ma am opportunité am ay combat ma ne xaaral ma jël ko ñu fexe nu ñu defaree suñu bilan. moo tax yàlla dogal na ñoo njëkk a bëre ci saison bi combat bi gën a gaaw ci bi ñun la jaw doom moo faram moo ko bëre daan adversaire am ñu koy ñu koy félicité moom tamit jaw ñu amaat ci yeneen trois défaites ñaari gis ngeen ni mu demee dañu bëri ñu daan leen kenn ki dafa blessé par avertissement par kii quoi par force lañ ko daanee waaw ñu ciy yàlla nag liggéey xam ne saison bi jeexagul quoi. dégg ngeen cinq combats am trois défaites ak deux victoires. non ci saison bi mu ubbeeg léegi. démb démb. non démb ñu ngi doog a dugg ci at bu bees le première janvier. waaw premier janvier benn benn victoire lañ am ak trois défaites. moom lañ am ci at bi di ñaan yàlla défaites yi yem fii victoire yi yokku loolu la ñuy ñaan yàlla. xale yi nekk ci équipe bi nu ñuy dundee ci équipe bi. waaw xale yi moom mooy li ma la expliqué parce que boo xoolee école de ma fanam lu si ëpp euh, même zone bi la ñëpp xamante bu ñu bëriwul woon tamit dañuy xamante. du làmbaleen boole quoi ndax ñëpp même même secteur bi la. Cheikh Wade jaxaay daaru xam nga moom la quoi waaw moom la waaw moom ñun famille lañu quoi boo xoolee. ñun ñëpp famille lañ ñëpp a xamante quoi ñun fii suñu affaire moom méttiwul quoi wax dëgg laa ci côté boobu. yaakaaroon ni CNG bi mën nañ yëkkati benn daan di ko teg ci ci kaw Cheikh Super Jamono. waa xam nga Cheikh moom dafa nekk xale bu yoru xale boo xam ni boo ko gisee muy dem sax ci mbedd mi doo yaakaar ni mbër la. est-ce que nga nekk xale bu baax wax dëgg yàlla li mu def damay jàppee juumte la mais nag CNG mooy suñu kilifa lépp lu mu def dama xam naa ne su koy def tamit ah euh, ñoom la mais dinañ ñaanal Cheikh grâce dinañ jégalu amateurs yi jégalu ko moom CNG mais lépp lu mu def tamit dañuy assumer suñu responsabilité mais Cheikh moom dafay rester di nekk doomu école bi ah école bi lépp lu mu ko mën a jàppale dina ko ko jàppale waaw waaw loolu moom. mooy affaire bi quoi mais nag dañuy ñaan parce que am na mbër yu ko ëpp expérience gën ko mag xam nga nekk ci làmb te Cheikh jox na leen leçon ba bu ëllëgee lii yàq làmbam dootu fa yàqu dootu fa jaare di yàq yenn ko yi kon leçon la waaw loolu loolu daal lañ koy jàppee parce que xale bu tuuti la demagul fenn quoi ñu ngi jéggulu CNG bu baax a baax mais nag ñun dañuy tënku ci yoon lépp lu yoon def rek dañ ciy ànd ñun dañuy assumer suñu responsabilité waaw waaw. jërëjëf président. merci beaucoup. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen ni nga xamante ni moom la Cheikh Super jamono wax jaam nag ak pexeem yàlla ak dogalam ku waaj say combat ay weer waaj ko ay semaine dem ba ci bis bi ñu ne la toll nga ci cappaandaw gi nga dem ndogal ñëw loolu mënoo dara lu dul yëkkati sa loxo teg ko ci ndogal suñu borom xam ne lii ndogal la ndax yaakaar yaakaaruma ne benn mbër bëgg na dem ba préparation làmb nga gaañu kon dañ koy ñaanal yàlla suñu borom may ko taw féex mu wér ak jàmm ak salaam ba delluwaat ci ay entraînement amaat beneen combat mbokki noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare lamb ak beneen daanaan jërë ngeen jëf.